site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko te yàgg nañ ma ko nangul itam ma introduire li nga xamante ne tey moom moo ñu dajale ku ne xam na ne xew-xew bi ñu xew ci réew mi tey mooy dañu fixer ay élections présidentielles pour le 24 mars ñu am suñu candidat notre leader le président Macky Sall choisir nañu ko muy Amadou Ba ñu jàll ci gannaaw décision président Macky Sall ànd ci pour jàppale ko pour que Amadou Ba mun a am ndam le 24 mars deux mille vingt quatre loolu nag ñun mosuñ cee ñàkk nekk ci loolu lañ mos ne ci candidature yi Adama euh, euh, Amadou Ba lañ mos ne waaye tey nag dafa gën a dëgër parce que tey dañu fas yéene nag taxaw fësal ko ci Fatick gi ñu nekk mais fësal ko ci waa Fatick ak doomi Fatick yëpp pour que buñ ci àggee Fatick bokk ci ñi dëkk yi ñuy lim ci ndam wax naa ne booba ba tay du kenn ci ñun ko xamne di nga tok dir te déggoonte ak sa morom te lu ñuy wax rek fatik rek lañuy waxtane am nañu nek suñu bir am ay responsabilité ci réew mi kenn ku nek fa nga nek ya nga doxal sa liggey nang ko wara doxale mais ñen ñi nek ci wet gi aussi ñu ngi leen di jappalé di leen conseil di leen gungé ci mission ya ñu am ba ku ne xam na ne tay entité bi ñi fi nek ndam yi nga xam ne ñooy feeñ ci réew mi nëbbuwul nit ñaa ngi koy gis ñu ngi teg seen bat yaakaar naa ne nag foofu la ñu doon xaar te loolu mooy fulla loolu mooy fayda ma wax léegi ne ñun day xam ngeen ne ba ñu jàppee ne élection dafa waroon am ku ne xam na ne position bi ñu amoon mooy li président Macky Sall waxoon ñu dem ba yàgg ñu ne élection yi reporté nañ ko waye ca jamono bobu waxtu wo sa su nek ñu ngi jëm di def ay pexé di sabab pour Amadou Ba rencontré ñu waye yalla dogalu ko nañ ba jamono newon nañ Amadou Ba xel darjul mu jogal boppam di set ay leader politique fatik, di len bëgg a rencontré pour wax ak ñom en apartheid lolu du def te amul ndigal président la république Macky Sall ñu nek ci lolu nek ci lolu suñu xalé yi ñu ne nañu xaar suñu xale yi songa ñu ne nañu muñ ba bés muy jeudi passé démb la woon jeudi tey la vendredi la Amadou Ba rencontré suñu leader yi mooy leader yi nga xam ne ñoo nekk ci entité bi toog fii waaye gëm naa ne day ànd su dëggoo te wér yaakaar naa ne bu fekkee ne fukki nit dañ koo seq ñaan ñi bu ñu demee taxawuloo rek dafay mel ni juróom-ñett yëpp nga ca loolu mooy confiance bi doxoon suñu diggante ak Babacar Diouf ak honorable Fada Diène ak Mamadou kamara ak soori Kaba ak Cheikh Ahmed Tidiane Dieng loolu mooy confiance bi nekk suñu diggante ak ñoom soori Kaba xalaat ne leader yi war nañoo daje waxtaan pour tënk dara mu oote réunion kër Fada ñu nekk ca réunion bi di waxtaan dir balay daray xew Babacar Diouf ak ay relation yam ci kenn ku nekk ci wati Amadou Ba muy waxtaan ak moom ba yàlla dogal seen diisoo yooyu tënk ba Amadou Ba ne leen ñëw leen ngeen uy suma léegi une heure et demie deux heures du matin ñu yëg ko ñun nekk Fatick suñu xol sedd ñeneen ñi yëg ko nekk bi Dakar te demuñ ca seen xol sedd parce que lañ fa wax ak lañ fa jëlee ak la Amadou Ba dënkaante ak ñoom lépp Fatick la te loolu nag lu judd lata loolu am lu xew la xew mooy ñoom bi ñu gisee dañu dépassé ay te élections locales ya coalition moo taxawoon muy coalition ànd nawle jongante ay élection jongante mairie bi yàlla def nag ñu wane ci suñu bopp ba àdduna dégguñu tey nag ñu ne ñoom beneen taxawaay lañ war a am taxawaay bi mooy du ñu jóg ci liggéey lu tax Fatick ñoŋ du ñu jóg ci liggéey lu war a tax Amadou Ba mu nekk président la république def fi lu ëpp li fi Macky sal defoon loolu nag li koy wayal wala li ñu ko mën a may mooy ñoom dañu jóg xool képp kuy doomu Fatick ci góor ci jigéen ci ndaw ku mën a doon ñu tala la loxo ànd ci benn dynamique unitaire pour que buñ ca àggee au soir du 24 mars ñu ne Amadou Ba gagné na réew mi. te loolu kenn ku ci nekk tey yaa ngi communiquer ak ay leader politique yoo xam ne tey bu fekkoon dañu waxoon ne tey élection locale mairie la ñu xëccoo kon mun na am du mun a demee noonu waaye gëm naa ne tey li ma gis ni bu installé woo suñu àggee sax ba ci élection locale ya waa Fatick sax mun nañ jóg tànn ne Isaaxa kaay nga toog ci mairie bi ah oui ah oui exemple boobu mënu ma ko jël ci kenn ku may sama bopp laa koy jël dama ne ce qui s'est passé cette semaine la dama ne loolu suñu yàlla dimbale bu instauré wu la ba toog ba installé wu bu ñuy demaat ci élection locale dootoo fi gis kuy xëccoo ak sa morom léegi ñun war nañu toog bennit wala ñaari nit échanger ak le maire mataar Ba

wax leen ma fan ngeen nekk ma ñëw fekk leen fa ñu waxtaan diisoo xalaat jógandoo di xëccandoo di dóorandoo nekk benn xàcc boo gis ko borom la te nag coon sekk wëy na ko nee na lu waay di def li ca torox am na keneen ko cay tedd kon nañu gëm sunu borom appel bi foofu lay commencé nit booy ànd ak nit nga gëm ko wóolu ko nga japp ne yalla existeru yàlla setaan la ak moom ñun nag fas yéene wu ñoo doxee noonu loolu moo sama gaay dañ may djéggal tout parce que xamna ni l'ex Pastef bi ñu libéré demb ils ont fait le tour de Dakar jubilé fofu la sen jubilé yem vous avez dañoo yaakaaroon ne dinañ yegg présidence ñoom jubilé nañ li ñuy jubilé ba ne pare nañ ci mais ce que ci yokk du loolu dama bëgg ñu publiquement aux Sénégalais que si le camarade Amadou passe au premier tour ils l'accepteront ils accepteront les résultats parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter les résultats il faut qu'ils le disent publiquement aux Sénégalais Je ne Diomaye la tudd xaw Comment Abdoulaye la tout. mais ce ci munti am il faut qu'ils acceptent le scrutin le 24 bu c'est parce que Amadou va passer au premier tour de loolu mais pour y arriver pour y arriver il faut être réaliste Il def na ci la liste parallèle à la liste de Benno Bokk Yakar, liste de Nawlé. parmi les 40 bureaux de vote de la commune de les bureau de vote bu né am nañ fa lu mu voix on a à peu près 40 bureaux de vote dans la commune bureau de vote boule, ne lu mu en train Les nawle 100 voix li ñu leen di ñaan 100 voix par bureau de vote na yokkuwaat nañ ci yokk bu de voix muy 105 voix loolu yomb na la stratégie va commencer par ça d'abord loolu nag liggéey la de du Fada et les autres qui ci fait le de ñu partager ko à grande échelle parce que li nous ñu sur une campagne électorale tay. moo que le camarade a jël ay engagement mu jël ay engagement mom nak engagement bi mu jël kuy gor dina la doy parce que daf ñu président Macky Sall moko ko té ba mu koy amna na prétendant yu bokkon le président Macky Sall fatigue le te moom tànn bi ko président Macky Sall tànn dëkk Fatick dina tax ba bu ko rendre njukkal Macky Sall mënu koo rendre njukkal feneen fudul Fatick mu ne li fi Macky def dina ko rox fi raw bu ko yàlla fale loolu nag ñun moo ñu doy ba tax ñu ne ginnaaw Macky Sall moom ci boppam nee na na ku nekk la nga ba jàpp nga ba dem jàppale Amadou Ba ñun xaaratuñu leneen lu dul loolu wàcc nañ ci terrain bi pour jàppale ko muy un

loolu nag moo tax ñun ñu fas détails yi ak les cuune ñun ci li dox élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme avec son peuple et le peuple fatigué, nous souhaitons qu'il choisisse à sa grande majorité le candidat Amadou Ba je suis le candidat du Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar amul beneen candidat bu candidat Amadou Ba leneen lu ñu fi wax lu dul loolu waxu paaxaan la léegi léegi nak ñun ñëpp constaté nañu né campagne électorale bi a fatik déroulé wul ni mu wara déroulé wo ñun ñëpp sétlu nañu mais on ne se laissera pas faire gor da nga koy mëna nek wala nga bañ ko nek jël nañu engagement wàcc nañu fatik à partir d'aujourd'hui pour respecter cet engagement là. bam ñu recevoir mu wax ñu lan la bëgg ci élection législative yi ñu rombo té bobu ba légui ci lolu lañu nek booloo leen doon benn ngeen fexe escore yi bi ngeen yëkkati ko ba ci kaw te loolu la ñu def te ba ñu ko defee gis nañ ci njariñ bi tànk yooyu nag mu ñu tegoon ba léegi ñun ci loolu la ñu nekk. foog ñun ñëpp ñu joxante loxo joxante loxo boobu nag moo ñuy yóbbu tey fi ñu bëgg a jëm mooy fal suñu président Amadou Ba le 24 mars incha allah di remercier monsieur le maire Matar Ba parce que dafa def geste boo xam ni wax dëgg yàlla c'est à saluer yombul en tant que maire dëgg ñi ñoo ngi rey réunion quelque part mu dagg yitteem yëpp ñëw fekk suñu pour que ñu boole suñu doole ànd liggéey yaakaar naa ni nit ku modeste nit ku wàccee boppam moo man loolu di leen wandi nag muy Matar Ba di yeneen responsable yi nekk ci dëkk bi dañu seq jàmm xaritoo wala ay élection di am jongante ne dina am mais jongante jàggante wuñ ni noonoo la donc ñoo ngi woo responsable yi Fatick yëpp ñu fàtte suñu bopp te jàppalante te xam ni su fekkee ni continuité la ñu wax moom la ñu bëgg ci réew mi nañ pour que li ñu bëgg si suñu candidat muy Amadou Ba ñu booloo doon benn le vingt quatre mars incha allahu rabi Fatick gépp génn ñu voteel ko wax dëgg yàlla APR mun a continuer liggéey bi fi président son excellence Macky Sall sumb. di jaajëfal aussi responsable yi nga xamné ne euh, démarché nañu ba dem dajé ak ki nga xamné mom moy candidat Benno Bokk Yakar son excellence le président Macky Sall def choix am ci mom donc duñu def lu di len jaajëfal wayé di wo ñëpp man nak sumay wax ci turi jigen ñi lay wax. Euh, di wax rek ne réunion bi ñu woté tay ndogu li ñu woté tay xeyna pour gissé là, la la waye na né tay premier pas ci li nga xamné mom mo le 24 mars inshallah par la grâce de Dieu euh, ñu ci ñaan suñu borom mu may candidat président de la république ndam muy euh, le premier ministre Amadou Ba voilà donc di tàllalaat loxo jigéen ñëpp donc euh, booloo pour ñu yegg fi ñu bëgg a jëm il faut ñu booloo ñun nag bu ñu jëlee kàddu dañ xool bëti bëti ànd nawle waaw ànd nawle la woon waaye loolu ci élection locale la woon ñu taxawoon ngir itam doon wut pour jël mairie dëkk bii nag wax dëgg yàlla waaye itam ba yàlla dogalee le maire Matar ba gagné dañ ko nangu waye continuer suñu liguey ndax ay doomu des bi lañu donc suba ak ngoon gu dégg bëccëg ñu ngi Nous pour fait, bi ñu gis ñu ñak ñoo gis ñu ngi pour bi waye nak nañu wara a enjeu ak yi bokul président de la république la fal président de la république biñuy fal dañuy ki nga président de la république sortant nga mu ngi ñu di ko ñaanal di ko sant bu baax dañ ciy profité di ko sant di ko gërëm parce que mënoon naa dem du tànn kenn seetaan ñu réew mi ñu teg ko ci loxo yoo xam ne peut-être liñ ci bëgg duñ ko ci am waaye yàlla def na ba xool na xoolaat ba tànnal ñu koo xam ne war nañoo mën a ànd ak moom kon ki ko gën a jege moom mooy euh, le président euh, Amadou Ba wax voilà moom moo ko gën a jege moom moom la la ñu dajeel mu wax yenem ci fatik bu jele nguur gi te yenem ci fatik mom moy dina fi def lu raw li président Macky Sall def donc je pense que loolu moom euh, yaakaar naa moy mooy euh, li gën ci ñun te ñun dañuy daw suba ak ngoon gu deg becc ngir lu doxal dëkk bi kon buñu amé ko xamné néna ne bu nekké président de la république dina taxawu fatik fu raw fu ko président de la république Macky Sall doomu fatik taxaw pour mu fay delo le président Macky Sall il faut mu nous Fatick def fi lo xamné lu raw lim fi def la lolu yaakaar war na mëna dal xel. suñu téway fi tay la ak au nom du mouvement ou bien au nom de la coordination des mouvements And sax si dans nos cœurs Amadou notre président. C'est pourquoi j'ai appelé le camarade Raymond Diouf et la camarade Fatou Diaspora et les autres qui sont là. ñu ñëw taxaw pour jëmmal loolu donc suñ teewaay fii amul différence ndax daan nañ ñëw di teew peut-être j'étais seul mais tey li ma gën a kontaan ci teewaay bi dama ñëw ànd ak ñoo xam ne ils étaient de l'autre côté mais li tax ñu ñëw tey mooy c'est parce que ànd nawle dafa woote woo la population faticoise ñun nag en tant que ndaw ci biir moom ay femmes Nous ne répondre à cet appel là se joindre à la campagne électorale parce que le contexte est moo donc par là nous remercions vraiment les responsables politiques. ils ont pu démarcher la rencontre am avec le futur président de la république amadouba. Ba ce di nous suñu xel ndax lam leen wax c'est lañ ñu nous te loolu dalal na xel jox na leen ay assurance wala garantie que ne déjà il porte fatigue dans son cœur Nous bugg ko aussi la population fatiguoise également le porte dans son cœur te dinañ ko accompagner incha au soir du 24 mars mu am ndam incha allah. lépp lu ma fi wax rek répétition la ndax kilifa yi wax nañ lépp mais dama bëggoon lancer un appel à l'ensemble des responsables politiques de la région de Fatik, particulièrement de la commune, mais aussi l'ensemble des responsables du Bédon Bokoyakar sur le plan national et au niveau de la diaspora, de s'unir comme un seul homme pour porter notre candidat, le président Amadouba, à la magistrature suprême. Yal le, candidat Amadou, c'est le président Macky Sall moo ko joxoñ c'est suivant ben cahier de charge remplir l'ensemble des conditions le premier tàmbali campagne de bi am ay mbir am mais nous avons fait. Je sais que lu Macky bëgg moom la nous bëgg et comme nous joxoñ kooku la andal, Nous engagement avec tous les responsables politiques de Fatick en commençant par le président du conseil départemental l'ensemble des ministres M. le maire Matarba, l'ensemble des leaders politiques responsables et autorités de la commune nous avons liggéey pour pouvoir mettre à Ba au soir du 24 mars si kaw bop rew mi mu jiritee ñu Sénégal lolu pour mu mun nek nekk ñu ngi leen di wax enjeu yi am Sénégal bari na enjeu wu pétrole ak gaz ay force taxaw nañ pour tal suñu rew mbok jigen yi dama bëgg ngeen déglu limay wax c'est extrêmement important taxaw nañ pour tal suñu rew taxaw nañ pour séddoo alal yi nga xamantene moom la réew mi am pour li nga ne le président Macky Sall def ci Sénégal ñu xajamal ko lolu nous ñun ñoy taxaw am fula am fayda bañ ko té bañ ko du dara dul engagement ba taxna limay ñaan s'il vous plaît limay ñaan ah, ay mouvement soutien à Amadou ñu leen di gërëm di leen sant Ndeye Latyr ma wax la nga wax xale yi yoroon mouvement yi ne ñoom ñëpp ñun ñoo bokk li ñuy liggéey te ki nga xamante ne moo si gënoon a fës ñu koy jàppale te nga xam ne politigul muy suma rakk bopp di suñu rakk ñun ñëpp am fu ñu teg muy Lamine kamera Lamine ñu ngi koy gërëm di ko sant gis nañ taxawaayam si biir Fatick loolu ku bëggul sa gox doo ko def taxawaay boobu nag moom la ñu ko bëgg a moom tamit ñu ne ko jërëjëf jërëjëf te nuñ ko mën a waxee jërëjëf Lamine li mu def yëpp kenn taxul mu koy def loolu président Macky Sall ndax ñu ñëpp président Macky Sall mooy suñu mag mooy suñu kilifa li muy def si Fatick yëpp yéeneem si Fatick kese la. te ni mu koy defee si ànd nawle noonu la koy defee si comité électoral noonu la koy defee si l' ensemble des leaders te aussi noonu la koy defee si gox ak goxaat yi tey am na ñoo xamante ne mënuñ la wax jëmm ji mooy Lamine Camara kon kuy def loolu dëkk ba mu koy defee dëkk boobu ñor na ko kon ma wax leen ne xaajaloo amul benn lañ mais doole ñu jiitalee dama bëgg ngeen xam ne ñun suñu intérêt bopp taxul ñuy dox ba ñu toogee ak Amadou Ba. dañ ko ne jëmm yii ngay gis amuñu solo ndax yàlla mu ñuy teral mais lenn kese moo am solo muy Fatick kon boog Fatick bi tax ñu ñu nekk benn Fatick bi tax ñu ñuy xeex ne góor góorlu ñu ñëpp lépp luñ si mën ñu def ko si. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi Le lu bees tàkk lépp lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay top. lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll.